auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ tubaa xadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan boo leen gisee jataay bu tedd bi xam ne ndigal jibati na jóge ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke di jëwriñi xaadim rasul jëm nag ci mboolem julliti rawatina taalibe sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba xaadim rasul ndigal loolu nag gannaaw bi mu ko ci sëriñ bi ñëw ci ki nga xam ne moo di sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mu nekk ndigal loo xam ne nii moom la fa yéene yëkkati jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne nii naka jekk sëriñ bi daleen di jox ndigal loolu nag du leen lu dul waajtaayu liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci tool yi ndax sëriñ bi at mu jot dana daal di yeesal ndigal lool soññ mboolem jullit rawatina taalibe yi ngir ñu daal di laxasaayu sóobuwaat ci tool yi dem nag waajal nawet bi loolu tax na ne nag jataay bi incha allahu rabbi sëriñ euh, Mouhamadul Xabaan fas yéene yëkkati kàddu yooyu nga xam ne nii joge na ci sëriñ bi di ndigal jëm ci mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi di firndeel rek wàccuwaay wi nga xam ne nii liggéey rawatina mbay am na ko ci yoonu murit kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Xabaan Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadul Fadal mu daal di jottali digal loolu. sëriñ bi naan asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na yi. ñu leen di nuyu bu baax. ñu leen di nuyu sant. di bi ak cant gi. nuyoo bi ak cant gi. mi ngi bàyyikoo ci kilifa gu mag gi. mi ngi bàyyikoo ci ñu fi nekkal Cheikhul Khadim. te mate ko sëkk. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi. ñu ngi àggale yéeneem. àggale yéeneem. ba mu tàmbaliwaat yeneen. sëriñ sëriñ baa ngi leen di nuyu bu baax. di leen sant. di leen sargal leen sargal ak ndokkeel ci fi fi ñu nekk nii muy weeru koor bi nga xam ne ci la nekk. mu ci am ak cant bu baax. mu bëgg nag. mu bëgg nag. suñu jógee ci bi. bu ñu jógee ci weeru koor bu mag bi. ba ba naan ndox. ba naan ndox. mi ngi digal bépp taalibe boo xam ne yaakaar na Cheikhul Khadim. mi ngi digal bépp taalibe boo xam ne yaakaar na Cheikhul Khadim. ci ab yëngoom jëm ci ay tool. ci ab yëngoom jëm ci ay tool. ñu waajal tool yi. ñu tool yi. ñu ngi ko jàpp nag. ñu ngi ko jàpp nag. talaata ji ñëw. talaata ji di ñëw. bu dellu see. bu dellu see. fekk ñu jóge ci li ñu nekk ni muy koor. fekk ñu ci koor gi. mi ngi ciy ñaan nag. mi ngi ciy suñu borom fekk ñu ci ak ndimbalam. fekk ñu ci ay tawfeexam. fekk ñu ci ak mu wax ni. mu wax ni. nit moo xam ne ab jullit. rawat murit. ab murit. balaa maanaam moom bakkanam ba mën ko joxe jox sëriñ bi. balaa maanaam moom balaa maanaam moom bakkanam ba mën ko jox sëriñ bi. man di liggéeyal sëriñ bi ah, ci lu baax. man di liggéeyal sëriñ bi ci li mu baax. day day taxaw ak liggéey. ak liggéey. ndax liggéey mooy tax a jaamu yàlla. ndax liggéey mooy tax a mën a yàlla. waxtu wi jot na moo tax waxtu woo xam ne liggéey jot na rek. mu soññeewaat loolu. mu soññeewaat loolu. bëgg ñu gën cee jëm bu baax a baax. mi ngi ñaan nag. mi ngi ñaan nag. sunu borom dafa def ci ay tawféex yu yaatu. sunu borom tabaaraka taala def ci ay tawféex yu yaatu yaatu. sotti ñu yoo xam ne. sotti ñu ay xéewal yoo xam ne. day ëmb liñ jëm. day ëmb liñ jëm. faj aajo yëpp. faj aajo yëpp. képp kuy ab jullitam. képp ab jullitam. mi ngi la ciy laabiré. mi ngi la ciy laabiré. waaye ndigal li moom. waaye ndigal li moom. mi ngi koy sant mboolem taalibe murid yi. a fi waaye mën a nekk rek. fekk ay tool nga yëngu ci. te yëngu ci liggéey jëm ci yëngu ci ay tool. nee na mi di lay digal nga yëngu jëm ci tool yi. mi ngi ci am yaakaar bu baax nag. ndax suñu borom tabaaraka wa taala moo sàkk ko ñaan. te ñaan ñaanu Cheikhul Khadim. moo ko amee moom Serigne Mountakha. te ni mu ko ñaanee rek noonu lay amee. kon ñu ñu dëgëral yaakaar yi. te jublu ci tool yi. muy talaata jii di ñëw. bu dellu see. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi. ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi. njaboot gi ci gannaawam. yàggal njaboot gi ci gannaawam. muy arka ak ak magi taalibe yi. def na ay ñu doon ay borom def ñu def ñu ay murid saadiq. ñu def lépp lu bàyyi koo ci moom ci ndigal. ñu lépp lu bàyyi ci sëriñ bi ci ndigal. suñu borom jàppandal ñu. ñu mën a wéyal loole wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi kon ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke mu jaarale ko ci cheikh mouhamadul xabaan mbàkke ibn cheikh mouhamadul fadal mbàkke mu jëm nag ci wàllum waajtaayu liggéeyi tool yi ni mu ko waxee rek talaata jii di ñëw bu dellusee war a dëppook le 2 mai 2023 kon yàlla nañ ci àgg ak jàmm jëfe ndigal li day ci ak tawféexi suñu borom ci barkeb Serigne Touba cheikh ahmadou bamba xaadim rasul di ko ñaanal moom cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi loolu te wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu